waaw sëñ bi ñu ngi leen di ziar bu baax waa Dakar Actu di leen nuyu bu baax sëñ Moussa Ba nuyu sëriñ bi nga àndal di leen ziar bu baax nu mu tudd sax sëñ El ñu ngi leen di gërëm di leen sant si yar bi ak teggin bi waaw man maa ngi tudd Ahmed Lamine Gueye maa ngi jógee dëkk bu naan gaaya ba sama maam jógee sama maam bi jur sama yaay moo naan mooy lu ñuy wax Cheikh Alhaji Abdoulaye fal Magat moo nekkoon ilman ziwe Cheikh Alhaji Malick bu bu Ndar suñ kër di këru daara boo xamee ne képp ku dem ndar Ribles Diagne xam nga ku naan Alaaji Ablaye Fall màggat yoroon daara di jàngale alxuraan di jàngale miim ya di jàngale naxwu kooku mooy suñu maam di suñu sëriñ te it ñu ngi jógee ñun ñëpp suñu côté papa it ñu ngi jógee gaaya ku ne xam na gaaya mooy dëkku maam Cheikh Alhaji Ablaye màggat dëkku maam Cheikh Alhaji Malick sama maam mooy yokkamu sa géey bokkoon si délégation bi nga xamee ni keroog bi Mame Fawade di yónnee sér ba pour ñu yóbbul ko ko si Omar Foutiou sama maam moo jiite woon délégation bi moo yokk mu sax Mouhamadou waaw man sa maa ngi njëkk jàng ki ma njëkk jàngal sama nijaay la boo xamee ni mu ngi todd sama nijaay Malick Thiam ba mu fa jógee sama nijaay Habib ki nga xamee ni mooy sama maguyaay moom mo jangal sama nijaay Habib Fall magad yan yalla yok leeram. bu weesoo loolu est-ce que. mu lolou après si dem Égypte. ba hmm. mu demee Égypte fala jangé mo intégrer fofu jang si faculté dawa nit do jang diiné rek japp di laaj nit ñi wala di dund si diiné war nga mëna am tol di bay comme Cheikh Hadji malik comme mag bu tol amul war nga mëna def commerce kom sëñ abdul Ahad mbake radiyallahu taala anhu dan commerce ba Abidjan kon ñooñu non nek suñu odal ci commerce ak jëfëndiku seen bop motax yalla ubil ma bunt ma ñëw fi republique tchèque depuis 2005 la fi ñëw wa depuis 2005 la fi ñëw ñëwoon pour jang ma ñëw fi ñëw ma fi pour jang dama ñëwoon rek pour jema a liggéey tuuti suturaal samay wajur yoré sen retraite dem ak sam bopp yàlla bàyyi sam bopp yàlla ba xam hmm. ndekete yow yàlla mi ngi may indi si benn dëkk boo xamee ni amuñu diine hmm. daanaka république dafa nekk dëkk boo xamee ni ñi gëmul yàlla ñoo fi ëpp que gëm yàlla hmm. bu ñu dellu waatee tuuti ba ngay doog a ñëw si dëkk bi bi dëkk bu sedd la woon nan la demee sa adaptation fii waaw bi may doog ñëw metti woon na lool arab rek laa déggoon boobu sama France sax leerul waaye benn bis dama mës réer bi ma réeree dem si benn doon dugg train nelaw ma réer bi ma réeree dem si benn dëkk bu naan Ostrava xaw ma fa kenn dégguma français dégguma anglais ma toog di di laajte di wax ak loxo di wax ak loxo ba ñu gind ma jour boobu daal la am yéene ma ni daal man daal bis na ko tey dinaa jàng làkk dëkk bi te dama am leen lu ma gëmoon benn góor daf ma ko waxoon mu ni ma lu gis si àdduna dañ koy jàng dara jafewul dañ koy jàng boo bëgg léegi mi ngi bëgg am 13 ans te alhamdulilah waaw léegi boobu ak metti waaw man bi ma ñëw njëkkee ñëw si dëkk bi metti woon na bi ma ñëwee fekk naa fi ay sénégalais ñu xam ni man mi taalibe la ndax taalibe day feeñ si doxin ak si waxin ak si yarin ñoom ñëpp xam nañ ko am na ñu ma doon wax sax naan ay oustaz fii nan nga fi mën a toogee ma ni man daal sama yaay naa ko suturaal. ku lu am solo. maanaam dëkk boo xam ne la peut-être gëm yàlla fii bëriwul. Mhm. dëkk bu bëri ay tentation la. Mhm. ah yow nga ñëw am benn euh, peut-être boo xam ne amoo ko ci diine. Mhm. Ah, fii nan ngay dëkkee sa naataangoo sénégalais ci wàllu diine diine bi ci wàllu dimbalante bi surtout. waaw sénégalais fii ni may dëkkee ñoom. ku ma ciis rek dama koy wan yar ak teggin mooy yarunu lislaam bàyyi kayit si li mu nekk du ma ñëw fenn di ko forcer parce que l'islam dafa wax ni la ikraha fi diin bul forcer kenn si diine waaye damay nekk ak ñoom bi xusni siyaasatin mooy li wax ni politique bu rafet ak siyaasa bu rafet moom la nga mën a dimmalee nit pour dugal ko si diine lislaam wala pour jubbanti ko wala pour mu jaar yoon bi nga jaar waaye doo ñëw fekk nit muy def lu neen lu neexul yàlla nga ñëw ni ko li baaxul wala nangam nangam wala mere ko wala nangam nangam. dama yore samay bagage bi ma yore bi ñu ma yore moom laa indi fii ku ma gis koo xamee ni yaa ngi si yoonu lislaam ma encouragé encouragé la képp koo xamee nekkoo si man la yàlla lii la wax yonent bi lii la wax ba pare bàyyi la ak sa bopp ku bëgg tudd sa doom boo ma woowee ma tuddal la ko. ku bëgg takk jabar boo mu woowee ma takkal la sa jabar. yooyu mm-hmm. yëpp dama koy def yëpp dama koy def. Mm-hmm. yooyu yëpp daal laaf ne ak ku xamee am nga lu la jaaxal si wàllu diine. Mm-hmm. ah dama koy dama lay damay ñëw daje yow toog ak yow wax la li yàlla wax ak li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax. muy delluwaayu diine si ñoom boo xam ne su ma toogee rek kenn ku nekk yaa ngi profité laaj ma li nga xam ne moom la yàlla wax. ak lu Seydina Muhammad saa salaam yenn saa dañuy déplacé ñëw ba fu may liggéey waaw laaj ma li ma lii ak lii lan la si yàlla wax ma wax leen ko nga nit ki tànk yaa ngi nekk si ñoom royuwaay loolu rek doy na ñu benn problème ndax euh, dëkk la dëkku jàmm la tamit ñoom loi bi moom mooy jiite seen réew ay loi la yoo xam ne dañ koy respecté te ñoom ñëpp dañ koy respecté à part encore am nañu sécurité bu am doole boo xamee ne bu ñu naree am benn problème fenn dañu koy aviser dañuy wax ni fee ak am na ay yu fa nekk yoo xamee Dakar wala genre yooyu à part ça moom wax dëgg yàlla amuñu fi benn problème.